amul favori. ah Père Palla nee loolu galaa la galaa xam nga combat mag bi la gars yi xam mais combat ndaw ci biir boo ko limee lépp galaa la ku ne combat bu ne Liss Ndiago Pokola Baldé loolu mënoon na galaa combat lamb boo lépp galaa combat la le 5 mai daal Père Palla képp ku ñëw di nga gis ambiance di nga gis cosaan di nga gis aada parce que gëm nañ ne Sénégal ñu ngi xaar le 5 parce que mois de mai gëm naa lamb moo fi lamb ju mag Sénégal war na ko après Korité allah ñu jëm le 13 juillet Père Balla diggante Alizé Junior Ibou Afia laa ilaaha illallaah xam ne ñoo jàppale petit production san sama xarit Fallou Fall Touba loolu nag petit bateau grand kala ko organisé waaw loolu kon petit bateau grand kala moo ko organisé <laughs> waaw le 13 juillet incha allah ah. Ibou Afia Alizé Junior ak yeneen combat ji war a topp maa ngi nuyu sama di gis taxawaayam di nuyu ñëpp petit production bi yëpp maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ñoo ma jàppale dama taxawu père kontaan naa baax ci yéen dimbale sant naa la gërëm naa la yow yow gën a la nekk ci affaire yi parce borom baax nga da dem fekke tey yow loo wax ci làmb rek loolu moo am ñooy félicité suñu frère nag Pogba bu baax a baax di ko ñaanal yeneen lamb yu mag a mag topp ji di félicité Abdoulaye Dia gis nañ taxaw suñu frère tamit kontaan nañ si baax a baax di félicité mbëri ji bëree père père maa nuyu waa maintenant gépp ak waa daaru julu waa nga Aliou champion maa ngi lay maa lay fay maa lay fay bu baax a baax Père. ban écurie nga nekk. maa ngi écurie bàyyi si xel ginnaaw raay. champion ni nga bëree tey nag. waaw billaay gis nga ne ah laaj loolu tey. wane nga jom wala nga fulla wala nga fayda. billaay wallaay waaw moo ñëw. nii rek la mënoon a demee. nii la mënoon demee nag parce que xam nga ku bëre rek champion bu mel ne Mor Kang Kang yombul ci yow. bëre bay guy geeg ñëw ñëpp xam nga mu bëree ay lamb yu métti ba pare ñëw lamb jaral ko mu mun nañ ne moo ñu ba pare taxaw réserver boppam waaw pour loolu day xaw a métti suñu côté quoi waaw moo tax dañoo joxe joxe nañ lu ñu am yëpp nag waaw bi mooy sama huitième victoire huitième combat. ah non loolu loolu ba am na solo. sama sama dernier combat Dame Junior yaa ko yaa ko reporté fii yuuxu lu rëy. laay ndeysaan. Dame Junior fii. Dame Dame Junior. waaw Dame Dame Dame Junior Dame Junior. mais ndam noo ko amee baax. wallaay wallaay gis nga noo la demee nag. looy wax waa lamb. waaw léegi gars yi gis nañ li may mobiliser. gis nañ fu ma jëm xam nga maam say morom ñoo fi nekk quoi ñoom jeex jàmm ay fagal ba ngor mobiliser wut lu may mobiliser xam nga bip jo bi fi topp si léegi maa moom ñoo tolloo ay ndam te li may dugal stade du ko dugal waaw ñoo dañoo war a bëri suñu biir quoi ñu bàyyi mooy mooy mooy tonte man moo tax ma dem di bëri ponkal yi tey mais see kiri nu mu tudd ñu bàyyi si xel bàyyi si xel waaw fala ñoom daa nekk waaw non fala ñoom euh, prince ak valdo nekk waaw léegi nag ñan nga soxla. waaw ñu wax rek ñoom fëgal bu ma rek jax jàmm ak gars yi ma ci am baax na. looy wax waa ginnaaw raay. waaw waa ginnaaw raay ñu gën a jàpp rek. parce que gis naa bu baax a baax tey. waaw tey jàpp nañ ci làmb mobilisé wu nañ bu baax a baax a baax en masse ñoo nañ soutenir seen doom. waaw di ñaan yàlla affaire yi gën a yokku rek incha allah rabbi. sa kàddu gu mujj. waaw di remercier ñëpp. rawatina sax waa staff bi. xam nga encadrement bi aw ma seen fay quoi. ki ci mel ni ñoom Mass Maam Saliou Pa Aline gaa yëpp billaay dañoo sonn sama mag aada ñoom jaajeek sëñ Saliou ak gaay Baye Dama ah, Pape Diouf dañuy sonn barki Seydina Mohamed fu ne la ñuy dugg ngir làmb ji waaw dama leen remercier bu di remercier waa ginnaaw raay yëpp waa marché waranka ñëpp bàyyi ma kenn gis naa mobilisation bi di remercier ñu ñu jàppale ñëpp ah di remercier ku ci mel ni Papa Ndiaye ah frère de docteur suñu yaay mayen do di ah, ku mel ni Baye Ndioro Sène ñoom imam Gora grand moo Ndiaye ñu ngi leen remercier bu baax a baax a baax xam nga di grand El Hadj Faye gis nañ seen taxawaay ñoom Mor Dieng rek di jaan ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen remercier daal di kontaan ñëpp di kontaan suñu jigéen ñi sama jigéen ñi ku ci mel ni ñoom Tadju ay ñoom Ndeye Maada ñoom ñëpp seen mafia bi bàyyi ma kenn fari dañuy sonn si làmb bu ñu amee làmb fële la ñuy dugg di kwet pour añ yeeg mën a mat ñu ngi leen remercier bu baax remercier sama coach Kanouté tam a baax a baax di ko ñaanal di ñaanal sama waa écurie Ousmane Waranka père Gongo yëpp maa leen di ñaanal daal jàmm di ñaan ginnaaw raay jàmm ñi fa am combat yi tamit maa leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm incha kon nag yaa ngi jox rendez-vous kañ waaw waaw waaw ba beneen jour rek incha allah rabbi ñoo ngi dégluwaat rek lamb lamb mooy suñu métier est-ce xam nga ni da nga bokk ci lamb yow waaw père waaw ku def huit combat victoire daan ay champion ku mel ne Assane ay dam si ñoom ñëw ba rek John Karami gis nga am ñu moom ndam kon waaw war ngaa mën a waaw lamb war na la bàyyi xel quoi rawatina liñ ci soxla nag muy mobilisation tam waaw kon gars yi war nañoo bàyyi xel quoi. ñu lay ñaanal yàlla yokk say ndam ak sa taxawaay. amiin sama père maa ngi koy gërëm tamit ak père tamit moom moo koy fàttali maa leen di gërëm bu baax a baax grand pape waaw. a baax. merci ñaanal bonne continuation. ok merci beaucoup père yow amal jàmm bu baax a baax a baax waaw. merci. dimanche mars 48e journée de la saison, une belle affiche qui porte la signature de la, de la structure TP Production, Teranga Production, pilotée par un jeune promoteur du nom de Djibisen, plus connu sous le surnom de Djibi Pogba. Donc Djibi Pogba, c'est un jeune promoteur qui n'a pas fait trois ans dans, en tant que promoteur. donc tey ñu ngi présentation ñaari champion ñi nga xamante ni moom mooy Boursine Boursine dernier combat am ñam bu ndaw moo ko daan le 22 octobre 2023 waaw Blindé mu ngi mujjee daan ki nga xamante ni moom mooy Nguer par KO le 3 décembre 2022 te dernière dernière victoire ba Boursine si Nguer la ko amee woon moom it donc euh, Boursine bi ko ki nga xamante ni moom mooy ñam bu ndaw bi mu ko daanee dafa découragé woon parce que dafa ne woon sa bàyyi na làmb ñu ñëw gis mu jël décision ñëwaat bawol bawol yi pare ko gonflé ko xamal ko ni combat bi làmb ji am nga fi place ñëwal dëggal sa bopp nga bëre li nga xamante ni moom moo nekk ci yow nga wone ko tey Père Palla bi ban jàngat nga si def. combat bi jàngat bi ma ci mën a def jàngat bu rëy la wax nga ko léegi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk sa ndam lu mujj ci ngeer nga ko amee waaye boo leen di xool ñoom ñaar seen différence de taille dafa poids bi tamit amul problème waaye boo leen di xool ci palmarès dañoo tolloo palmarès waaye combat ngi nii boo xamante ni ñoom ñaar kenn ku ci sàggan sa morom def la ko Bour Sine boo ko xoolee tey dafa entraîné ba ba ñàdd ba pare boo ko xoolee dafa mel ni combat bi jàppante la bëgg ak bëre bu gaaw waaye mi ngi bëre xale boo xamante ni actuellement fii nu toll ci làmb moo ëppale ay kaawoo ci làmb man boog seetaanaguma ko sax mu daan mbër ci song wala caxabal wala galgal ñëpp da leen a tur ñu daanu. kon combat bi. Mhm. mën naa ni. kaaw mën na ci am. waaw ardo mën na ci am. waaw waaye di dóor ñu remplacer la ci suuf mën na ci am. ah Père Pala yaa ngi bëree combat bi de. voilà un boo xamante ni. combat bu gaaw a gaaw lay doon. yaa ngi bëree combat bi de ça c'est le grand promoteur Djibi Pogba. Djibi Pogba dafa am lu ma la waxoon ci moom léegi. ma ni la démb la ñu ngi di la fay. ma ni la xale xale la waaye xale bu am jom la. waaw Père Balla li nga ko wax tey bisu kontaan la bisu mbégte la am na fayda ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Teranga production. waaw di nuyu ñuy jàppale ñëpp presse bi. waaw xam nga Balla Balla nga gën a waaw Père Balla. bi moom moo nekk doomu Ñoxor Diouf. doomu Ñoxor baayam. baayam ànd naa ak moom ba France. wallaay ndeysaan Père Pala ca combat Bombardier ak Balla Gaye 2. le promoteur Amadou Badiane moo ko tëggoon à Bercy. Eh, moo ko tëggoon. combat bu amoon solo combat bu nekkoon mu jaay la destination Sénégal en France. te Bercy la ko tëggee woon. c' était la première fois qu'on organise un combat de lutte avec frappe en France. en France ndeysaan. le promoteur Amadou Badiane ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. koy nuyu di ko ndokkel. bokk na si ñi nga xamante ñoom ñoo génnee Ama Baldé mu tëgg. combat ba dem na ndaw combat bu gaaw. ndaw combat bu gaaw Blindé ngi jiital tànku càmmoñ Blindé moo nekk côté gauche Bour Sine jiital tànku càmmoñ Bour Sine moo nekk côté droite ñu ngi léewtoo léewtoo bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ñu ngi léewtoo di xoolante dafa mel ni ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk yaa ngi bàyyi xel sa morom. c'est un combat entre deux adversaires qui ont c'est un boo xamante ni promoteur bi ko tëgg sax xamul li mu tëgg. ah Bour Sine jël na ah, décision tey. ah eh, eh. Oh. waxoon naa la ko de. Oh. nee naa la ñëpp dalee na kaw. Oh, kawoon na ko waxoon naa la ko. Ah, ah Blindé nee naa la ñi mu bëree ñëpp da leen a. doon ñu daan Blindé ñemeetuma ko Blindé. waxoon naa la léegi ne la musuma gis fu mu daane mbër ci song. Père Pala c'est le seigneur waxoon naa la léegi ni la gisaguma ku mu song daane la day dóor rek nga wàcc. c'est le nouveau maître des KO dans l'arène. nee naa la woon ku mu ci dóor boo jëlee koom boo toogul di nga wet. père Pala tax nañu fàtte Malick Niang. waxoon naa la ni la ku mu ci dóor boo defee nuwul di nga di nga di nga di nga jaaxaan. père Pala tax nañu fàtte super jamono super étoile. mbëre ngi noo moo xamante ni ñi mu bëreel ñëpp ba mu dajeeg ñoom ba ñu jëlee góosam wala droitam keroog la ñu gëj a xam lu xew ci la. Ah, waaw waa Grand Médine am nañu champion bi nga xamante ni mu ngi défendre seeni couleur. mbër la moo xamante ni day dem MMA di bëre di bëre di bëre ba yegg France. bëree na Afrique du Sud mu daan. bëre na France MMA daan fa. mu mujjee am défaite MMA France. combat yi mu gagné yëpp ci kaaw la ko gagné. ah champion bi c'est un champion très redoutable. champion feeñ na xamal ni da ngay moytuy dóor. écurie daal jàmm des Parcelles Assainies. ku ko jëlul moytu ay kurpeñ. Djily Poppa combat bi nu mu mujjee nii ban jàngat nga ci am. waaw balaa moom la damay nuyu ñëpp. xam nga dañoo am combat ñun dañoo am combat dañoo ànd ak suñu mbokk tey ñu jàppale ñu. xam nga waa Bawol ñëw waa Medina ñëw. ñëpp ñëw jàppale ñu vraiment kontaan nañ bu baax a baax a baax xam ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp xam nga di sant ñëpp xam nga di félicité bu Belende bu baax a baax a baax a baax vraiment ñu ngi félicité Belende waaw ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax yàlla na ko ndam waaw xam nga bés bi kontaan nañu xam nga ñëpp nañ ñu waaw. lan ngay wax ki nga xamante ne moom mooy Bour Sine dafa waxoon ni bàyyi na bëre nga fexe ba mu ñëwaat. wala lamb nii la daanu ak daan ñoo yem xam nga li ci am boo ko jëlee rek. nga jox ko jël ba jëwaat boo ko jëlee jël ba jëwaat même boo ñàkkee sax xam nga ni nga ñàkkee amul solo waaw mais ci président nga jox ko jël ba jëwaat ndax xam tey jii ñu ngi félicité ba blende daal waaw di encouragé ki daal ñu ki nga xamante ni moom mooy blende di encouragé davantage le grand champion Bour Sine mbër su mbër su nekkee si tolof tolof su amee ay mbokkam ñi taxaw ko dañ ko war a di gën a taxaw parce que Bour mbër bu mën a bëree la mbër bu am fit la mais tolof tolof bu ñëwee ci yoo rek da nga da nga soxla encadrement bu am solo donc euh, ñu ngi koy encourager bu baax xam ni làmb noonu la donc na defaraat ay toogaayam mu xool yan adversaire lay jël parce que mënoo jógee ci défaite jógee ci ay défaite nga naal nga daan nga dem di jël adversaire bi nga xamante ni Blindé c'est un champion très redoutable Djiby Pogba lan nga ci teg. démb la mënuñu ñàkk a nuyu ñi